suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ne su ko am abonné wu ci seen youtube bu ñambi tv na station bi ñu la nga wu ndax ngay am vidéo yi ñu dugal chaque jour di wax ni am ngeen ndam amati ngeen ndam amati ngeen ndam yal na yàlla barkeel yal na yàlla yokk na yaatal ci ilaha illallah sang bi ñoo ngi leen di jaar bu baax di leen ndokkeel di fedd li kóllëre suñ diggante ak seen waajur wa Cheikh Mouhamadul Amin géey moo ñu tudde suñu aafiya di suñu xarit di suñu baay di suñu lépp ñoo ngi leen di ziar baax a baax di wax ni li matana wax yépp wax nañ ko ci guddi gi yaatu na lool kawe na waaye da di yàlla duy jeex bu kii dalee fii ba yem fa keneen continuer rek loolu rek la nag kon kàddu yi mate woon na di wax ni waa Ndaayeen uy si leen ci oote bi yàlla bi kenn moomu ko borom bi subhaanahu wa moom la soob mu indi ko ci jamono jaare ko ci mbijjëm Cheikh Moussa sa Ndiamé borom daaru mu indi leen baatu laa ilaha illallah ak secret ba nekk ci biir xam ko dëgg-dëgg yi xam mooy jaamu yàlla ñàkk koo xam nag day tax jaam bi li muy jëf yàlla du ko mën a gërëm ndax yàlla moo ñu digal ni wama umiru ilaa li yaxbudullaha muxlisiina lahu diina unafa aw yuqimu salawaat wa yootoo sàkkata saalaka diinul qayima wama umiru digalu ilaa li yaxbudullaha ngeen jaam yàlla muxlisiina te ngeen sellal ko sell nag du mën a am ndere ruuxu dafa sell sell du mën a am ndere xol dafa sell sell du mën a am ndere xel dafa sell sell du mën a am mboolem cër yëpp dafa sell ana lan moo koy sellal jëmm ju nekk bala nga sel da nga jaar ci baatu la ilaha illa allah ak sekkar bana ci bir ndax alquran mo ñu ko wax wa tatmaina qulubuhum bi zikri allah ala bi zikri allah tatmaina alqulub ee yéen gëm yàlla raxat len seen xol ci tuddu yàlla ndax tuddu yàlla moy setal xol kon jëf ju du mëna a baax mukk ndere xol bi dafa set li koy setal nag mooy zikkar zikkar si nag day fekk nga am ci ndigal jëfe ko ci dëgg nga dajeeg seel xum rabbi mu gindi la ci nga àgg ci jëmmi yàlla te doo ko bokkaale ci dara ndax nee na dinaa leen wa anna allaha laa yaxfiru man yusruka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yazaau man yusruka billahi fadda dalalan bahida man yàlla ku ma bokkaale su ëllëgee da nga may sori ana lan moy bokale yàlla moy ñaka gis yàlla ana lan moy bokale yàlla moy ñaka yëg yàlla ana lan moy bokale yàlla moy ñaka xam yàlla ana lan moy bokale yàlla moy ñaka yeg ci yàlla ndax yow jaam bi yaa la ilaha illa allah dara nek fa illa allah dul yàlla nga fay gis sa bop di fi gis say dom di gis say xar di gis say dekkando dede da nga febar demal ci ku ku mën faje ku melni sayidina Ali mu fajla soo demee mu raxas sa xol bi ba mu set raxas sa ruugi raxas sa xel def ci nuurul mahrifatu billahi su ko defee ngay jaamu yàlla 24 heures sur 24 doo ko bokkaale ci dara ndax suñ borom mooy wax ni wal asri inal insaana la fi usrin illa la siina amanu wa amilu saalihaati xaqi wa tawaasaw bi sabri wal asri gin naa ci takkusaan waaye su dee aarifina billahi danaa gin naa ci takk takkusaani من إن الإنسان نك نك دوم عارم لا في عصرين كبرتلا إلا لسنا نقول نجع خامني آمنوا دنيو كم وعمل السار جف يقدو منا بع مكن درب بكال يلا دفتن شجع جف يقدو منا بع مكن خلنا جف يقدو منا بع مكن درب كم دفتن جف يقدو منا بع مكن درب أم توحيد الإلهية يلا بنكو إجامو تتوحيد لنكو إجامو mooy wéedal ko ci turam bi wéedal ko ci jëmmam ji wéedal ko ci wéedal ko ci maqaamam bi kenn mënu ko nag ndurul da nga am seel xumu rabbi bu mat seel xumu rabbi kon jaamu yàlla jaam bi ko mën a def muk ndera daa am ko ko dimbali ci digganteem ak boromam tey nag jamono liñ def jaamu yàlla julli waxtu yu juróom natt mbay mi asaka suñu amee paas dem màkk ma baax na de waaye njëkk ngay jëf nag balaa jëf ju xam bu mën a doon xam sa borom mooy bi ci gën waaye ku bëgg a jaamu yàlla te xamoo ko danga koy bokkaale ndax soo julee buñ la laajee nangu na danga naa yàlla xam soo waree buñ la nee nangu na danga naa yàlla xam lépp loo def buñ la laajee danga naa ala ak xam su ko defee nag da ñëw ci ki nga xamante ne mooy Seydina Aliyun moom mi yàlla tànn ci jamono ngir mu dimbali la sa digganteek sa borom ndax ñaari sëriñ dafa am wala ñett sëriñ bi nga xam dafa donn sëriñ ci kër bayam ak sëriñ bi nga xamante day day don jibar ak sëriñ bi nga xamante moy mooy murabbi mu murabbi bobu nak yàlla moko tan ci motax tax sëriñ Tuubaa naa seexoo seexu mu bi rabbi ruhi yarda ila allah fala budda min dukhulil janna top sang mo gëna mag top ñaari wajur ndax sang day jël sa roog yéege ko ci péeb yàlla bi muni fala falaa budda nga tàbbi aljana fa ama walidu yu rabbi jismi faqat ama akuna min ahli janna aw akuna min ahli naar mu ne nga bok ci ñooñu sawara wala ñooñu aljana waaye so topé sang mom day jël sa roog tabal ko ci péeb yàlla bi muna fa falaa budda nga tàbbi aljana kon ki fi woote wootewul ci ndeyam wootewul ci baayam wootewul ci ay bokkam ci kenn la leen woo muy borom bi subhanahu wa taala wa tawa ndax dañoo xamoon yàlla démb njëkk ñu ñëw fii ci àdduna yawma alastu bi rabbikum xaaloo bale bañ koy wax ci aramul ara la booba suuf amul asamaan amul jant amul weer amul lépp li fi nekk di univers bi dara amul ci woon ba ruu yonent bi salaa salaam njëkk a yeneen ruu yëpp topp ci loolu lañ suñ pas-pas su jaamu yàlla foofu la dugge woon bi ñëwee fii ci alamu naasoot yàlla yónni ay yonanteem kum yónni ni demal nga fàttali ma samay jaam kon loolee ñu fàtte moom la ñuy fàttali islaam googe nag képp ku juddu indaale nga ko li anna kullu mawlidun yuridul fitra ala islam képp ku ñëw indaale nga leeru islam leer googu nga indaale nag soo màggee jaam bi damay wax bi muy juddu tudd na liir bi bu bu del seen ñu tudde ko Faatu wala Mamadu te na tudd néew bi waaye beneen tur bi nga xamante ne moom la ko yàlla binde ñu koy wax ismulaayil asam tur boobu la yàlla laaj jaam bi tur boobu nag mu ni def na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent ba ko téeméerali tur biy dund jëmmi doomu aadama ju nekk ma nga ca ndax jaambi su xëyee bu tegee tànkam dina ko bisimila jaambi su suy lekk dina ko bisimila jaambi suy naan dina ko bisimila lépp lu muy def mi koy tàmbalee waaye dinaa wax ni lépp lu làmmiñ wax nopp dégg ko bët da koy gis bakkan soo ko mën a dund kon su ko defee jaam bi lépp loolu muy wax loolu xam ko gim ko war a xam ci boppam mooy tax yàlla man koo nangul waaye su ko xamul nag kiiraay la boo xamante ni nekk na ci moom li muy def yàlla du ko mën a gërëm kii mu teg ci ndaaya Seydina Aliou nag jàngoro jooju lay faj fajul jëmm fajul mboolem fekk feebaru jëmm waaye feebaru ruux lay faj feebaru xol lay faj waaye feebaru gis-gis lay faj buñ nee tawhid mooy wéetal yàlla ci lépp loo xamante ne nekk na ci alam bi jëmm yàlla ji rek moo fi nekk ndax baat biñ la wax loo moo dàq lépp li fi nekk ba soo xoolee yàlla nga ci war a gis soo yëgee yàlla nga ci war a yëg lépp looy def rek jëmm yàlla ji moo loolu mooy tawhidul ilahiya ci jaam bi ci fu mu mën a ne ak ci lu mën a nekk kon lii mooy xam-xam bi nga xamante ne yàlla moom la yónni ay yonenteem dale ko ci aadama alayhi salaatu wasalaam jaare ko ci Aziz sa doomam jaare ko ci kullukum yonente ba ci doomi Abdullah ak Amina ñun góor yàlla ñooy wax nit Muhammad ay nekk ñu benn Muhammad Rasulullaay mooy mooy leer gi nga xamante ni lépp li fi nekk moom lañ ko sàkk ku yàlla mas a yónni moom la yónni moom la jox Isa moom la jox Moussa moom la jox Ibrahima moom la jox kullukum yonante ba ñëw ci doomi Abdullah ak Amina ca aarul xiraax lañ ko yóbbu raxas dënn ba ba set doo ko def ci moom leer gi ba muy dem da ko fee bàyyi Seydina Aliyin Omar Ousmane mboolem ay sahabaam ba ci taabi taaba yi ba ci al ulama aw rasul anbiyaay Cheikh Ahmad Bamba ca la bokk limaamu laahi si Abdul Xadir Jilaani Cheikh Ahmad Tijaani mboolem kullu waliyu laahi ci leer goo nga doon na ci rasulullah alayhi salaatu wasalaam muy baatub laa ilaha illallah ak secret ba nekk ca biir su ko jaam bi xamee bu jullee mu nangu su ko jaam bi xamee bu wooree mu nangu su ko jaam bi xamee bu nattee mbay ma asuka mu nangu bu ko jaam bi xamee donte day nelaw sax yàlla day gërëm nelaw yooyu ndax moo ne nawmal nawmal aalim afdalu min ibadi jaahili kii julli ren ba déwén te xamul boroomam kii jaamu yàlla te àgg ci jëmm yàlla ji ay nelaw wecc na ko ren ba déwén kon jaam yi wuy si leen leen sàkkoo xam seen i borom jaamu seeni i ku njëkk de dee yàlla fay ko mu jaamu ji yàlla ngeen jaamu yàlla ku de yàlla fay la mu jaare ko ci baatub laa ilaha illallah ak secret ba nekk ci biir lii rek moo mën a def damay wax ni tey jamono ji ñi ngi naa ñi naa ni waaye damay wax ni fan yii ابليس مو دومينا تي والو فوتبال بي تي خولي جامني بالله والله وتعالى ومن الله تاي ات اتياليت بي نين كوي واخا تي لي خيو تي جامونو فوتبال بي لا تاي مبولم كليفا ييك ني مانا دون دي بار تي استاذ ليك لان لان دون دور باي نين تي فوتبال بي غير مليار يان تي ام ني ني لان نين تي فوتبال بي غير توت سانتي ام مبولم تاي جوبلو واي بي خولي تي لول ريك لا نيك تاي تي جامونو yonente yàlla googu nag yonente yàlla football tey moo nekk ci jamono moo nekk ci xoli jaam ñi billaahi wallaahi wa taalaahi wa minallaahi kum neex am kum naqari loolu moo am Sénégal gagné na Sénégal dugal na fii rek la jaam ñi nekk tey nag xel yëpp ci amub kub lañu nekk nag waxatuñ gis yàlla waxuñu xam yàlla waxatuñu lenn waaye bu bu takkusaan jotee ñu ni football am na timis ji moom dañ koy ñàkk bu ñëwee football suur bi yëpp xeli jaam ci match bi la nekk foo romb ci Sénégal kii mooy def lii kii mooy def lii kii mooy def lii lii moo nekk ci jamono yàlla woowu leen ci loolu gore leen billaahi wuy si leen bu ngeen ko sàgganee bis ngeen ñëw mun leen nuus te comme nuus nag la cee tege rek moo ca tege ki leen woo ci dëgg woo leen ci njub woo leen ci xam-xam kii rek moo wàcc su ko neexoon mu yemale ko ci boppam su ko neexoon mu yemale ko ci ay bokkam waaye daa jéggi ay bokkam ñëw ba fii yàlla yebal ko fi mu ñëw mu taalal ko seen ñeen ñi tàbbi nañ ci ñeen ñi tàbbeeguñ ci yëmale ko ci boppam mu woo ay mbokki taalibeem woo mboolem senegal togg ay xéewalam ñëw taalal sikrullaahi baat bi gën a màgg ci kaw suuf woo ay jaamoom ngir ñu seede ko ci loolo kii damay wax ni wàcc na su ko xaman ni mu xam moom de kon njariñ du am waaye da koo xam taalal ko jaami yàlla yëpp kon nak ñong koy ñaanal sa borom gëreem ko yéege ko tay yok ko tay adal xam-xam bi ci mbollem ndayen ak liko wër ci la ilaha illa maqam allahu darajey kullu wali kullu arafina billahi ci inna ma amru isharat sen yaqulu kun ci barke Cheikh Aliou Diouf dana wax ni su ko xari doon jar dana ko abonné wu ci seen youtube bu Ndiamé TV bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour